laa jox coalition yi sept pour cent Yewwi vingt pour cent Wallu jox juróom-ñaari député Touba loolu bu ma ko defee am lu si météo a expérience bu ma nangoo tuur sama a xool danoo gis am ku wax ni yow mënoo liir mënoo bind bëgg lay loolu am ñu doon coow ci benn plateau loolu ay wax parce que règlement intérieur assemblée nationale waaw mos mhm. mu nekk candidat candidat président assemblée nationale dafay liir dafa mën a liir wala mën a bind mhm. lii rek bind waxul ni France lay doon man dama jàng ba am samay diplôme arabe laa jàng moom laa bëgg a jàng français bëgguma ko jàng ndax ñu ko fi indi gëwuma leen man Sëñ Tuubaa laa gëm ak mag ñi moom bu am complexe pour wax loolu moom la conseil parce que kooku dafa bëgg nekk si bureau assemblée moo tax mu doon tàgg Macky Sall ak di défendre le règlement intérieur assemblée article neuf dafa wax ne jour bi ñuy ubbi séance jàng mën a bind mën a lire langue officielle mais toujours boobu la wax mais waxul na président bi obligatoire ma def loolu waaye loolu lépp ay lay la ak ay tappale yoo xamante ni pour bëgg a jaxase xelu askan man sama papa nekkoon na vice président assemblée nationale sama nekk na président pour parlementaire mën naa mën naa bind français mën naa ko wax mais dama ko soxlawul wolof moo ma neex pour ma askan ñu mën a jërëjëf honorable jërëjëf jërëjëf